am na luy ñëw nag dama ko di sëriñ si ak sëriñ yëpp jaaw nag Touba Thiénaba Ndiassane ak yëpp ma ni muy élection yi ñëw yàlla ci yàlla def jàmm ak bu ci yàlla def jàmm rek dañuy jéem a jubal ba jàmm am sañu lépp ci yoon ba kii jël jëw ne yàllaa ko am xanaa man xam naa i may woote sëriñ bi sax xam na ki may woote yow mii xam nga ki ngay waaye di ngeen ñax waaye man nag ki may woote kenn rek we can go. jërë ngeen jëf mbokki euh, internet yi mi ngi noonu dëgg du rombi nopp moom nag dal dinay ne ku nekk am na ka nga xam ne moom nga tànn ngir dal di koy woteel ci élection présidentielle yi lée bu yàlla di def jàmm rek moom mi la nag bu ñu ca yeggee kii di président Ousmane Sonko lay woteel moom noonee nag la ko waxee te nëbbu ca dara moom président Ousmane Sonko nag saa su ne rek mi ngi gën a fës ci ni nga xam ne noonee la ko bëggee fii ci réew mi moom moomee nga xam ne nag yëkkati na kàddu gi di magum Pastef daal di fësal ne bu ñu eggee ci ay élections présidentielles moom président Ousmane sunko lay wooteel donte ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko nekkul candidat yéene ji nga xam ne dal dina koy am ci président Ousmane Sonko moo daal di tax mu waxee noonu ni la. ndax ku ne xam ne ne moom président Ousmane Sonko kii di Bassirou Diomaye Faye da daal di tànn waaye loolu le day wane ne rek kii di président Ousmane Sonko ba tey ñii di askan bi ñu ngi continuer di am yéene ak bëgg gun ko nu ko bëgg moom président Ousmane Sonko. loolee waral magum Pastef moom mi la daal di fësali kàddoom ne rek bu ñu àggee ci ay élection moom mi la kii di président Ousmane Sonko lay woteel doonte nekkul candidat nag kii di Bassirou Diomaye Faye moo nekk candidat bi nga xam ne moom la daal di tànn.